ko dee jàngat. Mm-hmm. ba ci biir. Mm-hmm. Euh, dafay dafay mel ni. Mm-hmm. nguur gi en réalité objectif premier. Euh, ñiy fexeel usman sonk président Ousmane Sonko seen objectif premier. du tëj Ousmane Sonko mais yàq deram la. ah bon d' abord benn kilimal deram deuxièmement takk buum ci tànk bi te dinaa leen expliquer un peu. Euh, procédé boobu bu fekkee da nga ne da ngay def complot ak nit. Mhm. plan d'action bi nan nga koy mën a dérouler. Mhm. su ngeen xoolee bu baax. Mhm. dañu njëkkoon wax ni président Ousmane Sonko euh, gendarmerie moo koy déglu section de recherche. te gendarmerie bu la dee déglu c'est sur la base d'une plainte. société bu lay déglu ci plainte objet plainte bi rek la lay déglu mais du la déglu ci au delà de objet plainte bi li ñu bind ci plant bi rek ci loolu rek la lay déglu. Mmh. li ñu bind ci plainte bi mooy viol. Mmh. mais gars yi bi ñu càmbarlee comme mbiru complot la. Mmh. da ngay gis ni bu ñu demee section de recherche. gendarmerie yi déglu les parties. dana gis ni fii affaire viol amu ci ko donc dossier bi dafay clos day jeex. Mm-hmm. dootuñu ko sax waxati. Mm-hmm. oh dafa mel ni ñi nekk ci ginnaaw kii bi nag bëgguñu dossier bi jeex. Mm-hmm. loolu moo waral beneen instant. ñu désaisir gendarmerie. dugal procureur de la république. directement nga xam ne léegi dootul euh, gendarmerie moo koy déglu. mais naa léegi procureur mooy ubbi enquête jël affaire bi ci moom. léegi pour revenir ci li nga ma laaj. Euh, xam nga plainte bi dañ ko adressé nommément. ku tudd Ousmane Sonko. donc normalement procureur dafa ko war a mu woo moom Ousmane Sonko. Mhm. mais li lay wan ni dafay ubbi enquête contre euh, X moo lay expliquer nii euh, Ousmane Sonko maîtriser tegul agenda maanaam moom léegi. Mhm. emploi du temps mhm. mi ngi ci loxoy justice. parce que suñu ubbee enquête fii ba fukki at yow da nga war a nekk à la disposition justice heure bu la justice soxla ci cadre affaire bi mën nañ laa woo. nga ñëw wuyu si loolu mooy takk buum bi. c'est-à-dire ëllëg tey jii Ousmane Sonko bu waree bëgg a dem doxi daram sax. ñu ni suba la koy dem doxi ñu xam ko procureur mën na ko woo suba soos te su ko woowee dafa war a bàyyi li muy def ñëw wuyu si parce que yoon moo ëpp doole li muy def. kon donc moom fii ba deux mille vingt quatre. tul agenda mais justice mooy maîtriser agenda. loolu mooy takk buum bi. beneen bi. mais mën na nekk plan bu aussi. mu bi. Euh, beneen bi mooy tilimal der xam nga euh, régime bi ñu nekk nii euh, le président de la république son excellence Macky Sall. dafa nekk kilifa goo xam ni ci prise de décision dafa nekk kilifa kuy jëfandikoo lu ñuy tuddee sondage maanaam sondage bokk na ci bëri yoo xam ne ci lay sukkandikoo léeg-léeg di mën a jël yenn décisions yi en termes de gouvernance et de politique publique mhm. dafa am ay sondage yu génn donc mën naa bañ a wax tur si ñu ko génne mhm. mais euh, euh, palais bi day def sondage mais aussi euh, yeneen dëkk étranger yoo xam ni dañuy jëflanteek ñoom dañuy def ay sondage mhm. léegi sondage boobu dafa wax ni Covid bi dafa nar a nërmeel économie Sénégal. Mm-hmm. dina ko sonal trop trop trop ba nga xam ni conséquence am mooy dafay nar a am ay trouble social parce que am conjoncture bi dëkk bi dana métti métti ba nga xam ne nit ñi dañuy am ras-le-bol. Mm-hmm. te ras le boobu buy tomb ci pic pic bi ci cëppaandoo gi. Mm-hmm. dañuy nekk ci deux mille vingt quatre. te de te kon euh, nu mu tudd sax raada le général boobu généralisé. mer gi dafa nara a profité ak président Ousmane Sonko bu ñu tollee ci deux mille vingt donc léegi sondage yi joxe ni fi mu toll nii euh, président Ousmane Sonko dafa nekk ci benn pole position léegi nag président Ousmane Sonko dafa am ñaari mbir yu ko topp ñoo xam ni. Mhm. dañuy liggéey pour moom mu bañ nekk président de la république benn bi c'est extérieur. Mhm. benn bi c'est intérieur. extérieur bi ki ci jiitu moom mooy France. parce que Ousmane Sonko dafa mës a wax président Ousmane Sonko dafa mës a wax ni moom bis bu jëlee réewu Sénégal. acte bi muy njëkk a posé. mooy génn ci France nekk CFA. or pour France nag nga rey leen. ñu dee nañu yemale affaire France CFA bi. d'ailleurs euh, euh, Édouard Balladur daan na wax ni. Mm-hmm. la question du franc CFA. Mm-hmm. ce n'est pas une question technique mais c'est une question politique. Mm-hmm. léegi nag France dafa mel ni heure boo ko déclarer guerre rek mooy nga tudd franc CFA bi. donc ñoom président Ousmane ah. Sonko daf leen a déclarer guerre donc ñoom tamit du point de vue géostratégique hmm. et c'est tout à fait normal ku nekk da ngay défendre sa intérêt donc du point de vue géostratégique ñoom amuñu intérêt ku mel ni président Sonko ñëw falu fii ci Sénégal mais du point de vue intérieur le président Macky Sall aussi non pas moom individuellement hmm. mais njabootam wala entourage am ku mel ni président Sonko bu ñëwee jël réew mi ak moom fu mu jaar ak moom personnellement. ba dàq ko fonction publique ak fu mu jaar ak moom ci politique. mën nañu am chasse aux sorcières. donc da ngay gis dafa am ñaari intérêt extérieur ak intérieur bu bëgg a coaliser. def tout ba président son ko bañ a ñëw euh, ci kii bi. lu tax loolu euh, analyse boobu di fondé. Euh, enquête yi aussi dafa wane sondage d'opinion bi dafa wane ni ci carte électorale bi. ñi nga xam ne buñ la votelee yaay gagné élection yi. Mm-hmm. ñoo ñu bokkuñu ci benn parti politique. en réalité waaw waaw dafa am ñoo xam ne dañu bokk ci parti mais askan bi nga xam ne bokkuñu ci benn parti. électeurs yi ñoom ay électeurs citoyens lañu. bu élection bu jour élection jotee dañuy sangu posot jël seen carte dem. voté selon leur intime conviction ñibbiwaat seen kër boole wuñ ci dara ñooñu ñoo ëpp ñi nga xam ni ñooy daw di yuuxu ci parti politique yi. Mm-hmm. te ñooñu ñooy basculer élection. léegi nag ci ñooñu tamit dañuy sondage bi dafa révélé nii temps yi yëpp ñooñu dañu commencé di bàyyi xel président Ousmane Sonko. parce que idée yi muy wax dafa commencé di dugg ci seen xel xam nga lu tax. Ousmane Sonko profilam dafay yee ci askanu sénégalais ak africains yi ñu ñuy tuddee les perdus des indépendances maanaam euh, mooy Patrice Lumumba bu nekkoon RD Congo. mooy Thomas Sankara bi nekkoon euh, Burkina Faso waaw mooy Oumy Ndiobé bi nekkoon Cameroun ba ci Mamadou Dia bi nekkoon euh, Sénégal ça veut dire que askan bi fi ñu toll nii dañu soxla non plus alternance mais ay alternative dañoo bëgg ay doxaliin bu bees pas nit yu bees voilà ay nit ñu bees mhm. ay doxalin yu bees ba ñu yem ci ay nit yu bees kese quoi très bien non seulement euh, opinion bi lu mu révélé mhm. mooy Sénégalais yi dañoo soif ci changement te changement boobu ñu ngi koy xaar ci ay gis-gis yu bees ci ay nit yu bees ci ay doxalin yu bees léegi nag euh, euh, groupe boobu nga xam ni ñoom ku ñu votel nga gagné mhm. dañu commencé bàyyi xel président Ousmane Sonko léegi léegi léegi foofu lay daaneele rek léegi nag euh, groupe boobu mhm. Euh, dafa mel ni kon Ousmane Sonko jéemal nañ ko defal lépp pour mën ko daaneel sur le plan politique mënuñu ko daaneel. Mm-hmm. léegi nag ñu ni xaaral ñu xool beneen beneen parti buñ ko mën a daanelee parce que groupe boobu ce sont des gens de certain âge. Mm-hmm. te ñooñu en général affaire mbërs. Mm-hmm. muy affaire viol. muy affaire sàcc. muy affaire góor jigéen. su ñu ko xasee ba tuumaa ba sa deret ñooñu donc yëpp dafa mel ni dañu war bëgg jël ñooñu nga xam ne bu ñu basculer Ousmane Sonko mën na am résultat yu baax ñu yàq der parce que ñooñu effectivement li li Ousmane di wax intéressé leen mais wóolooguñu Ousmane Sonko loolu mooy problème. te léegi nag bu lii duggee. très bien xel gën a jaxasoo. très bien parce que comme Ousmane Sonko li mu leen di wax mi ngi raisonné seen bopp. wu ñu booy bi. léegi bu ñu tuumaal ko affaire xam nga gor. Hmm. Euh, boo ko bëggee rey doo ko tëj kaso. mais da nga koy tuumaal lu mu deful ci wàllu sàcc ak ci wàllu viol. ak hmm. da koy tuumaal lu mu deful. Euh, waxuma ni Ousmane ko def na wala deful. waaw mais gor su du tëj kaso pour affaire politique. Hmm. moo koy rey. li koy mën a rey mooy nga jiiñ ko sàcc te sàcc. nga jiiñ ko viol te violé wul. nga jiiñ ko affaire góor jigéen te nekk ko. loolu da koy kii bi donc nag léegi Ousmane sonk comme jéem nañ fekke yëpp politique mënul jàll. léegi dañuy génn champ politique dugg ci champ mœurs parce que dañ ko bëgg a dumbayoloo ñoo xam ni bis bu ñu basculer ci Ousmane rek réew mi. d'accord. changement yu yu profond am. macha allah Serigne. macha allah macha allah wax ji moom wax ji sax moom li ci li ci li ci li ci li ci li ci ñu bëri jàpp xam nga mooy la bi nga ne waxuma ne deful. Mm-hmm. Mm-hmm. su doon da far da ngay taxaw rek ci non deful complot loolu loolu mooy waxu militant. Mm-hmm. mais da nga ne waxuma ne soo ko deful. deful. donc def beeg def ñàkk def wóoru ko. voilà mais bu dee nag dafa mag ñooñu nga xam ne dañu ko jàppoon ndax xalaat ci moom loxo ba set ak yooyu dañu koy dummuyu. ndax gor bu ñu la tuumaalee sàcc góor jigéen euh, wàllum viol. mar euh, d'Italie. waaw ah, kay. dégg ah. mayel kado yi. mayel kado yi ñu dem. 88 628 da ngeen ah dañ may nettal histoire yu neex de suñu xol yi xaw a giif tuuti xaw a féex ñu door a maye cadeau ku ñu nettal histoire bu gàtt rek une minute rek une minute rek dafa bëri de 30 secondes 30 secondes waaw kon 30 secondes rek wala 25 secondes téléphone bi dafa am dafa waaw kay dafa am bëkkante donc nag gàtt rek parce que cadeau yi tamit cinq cadeau la xaw ma six rapidement ko dee jàngat ba ci biir mm-hmm. euh, dafay dafay mel ni mm-hmm. nguur gi en réalité objectif premier. Euh, ñiy fexeel Ousmane Sonko président Ousmane Sonko seen objectif premier. Mhm. du tëj Ousmane Sonko mais yàq deram la. ah abord benn kilimal deram deuxièmement takk buum ci tànk bi te dinaa leen expliquer un peu euh, procédé boobu bu fekkee da nga ne da ngay def complot ak nit. Mhm. plan d' action bi nan nga koy mën a dérouler. su mhm. ngeen xoolee bu baax. Mhm. dañu njëkkoonoo wax ni président Ousmane Sonko euh, gendarmerie moo koy déglu section de recherche. te gendarmerie bu la dee déglu est sur la base d' une te bu lay déglu ci plainte objet plainte bi rek la lay déglu mais du la déglu ci au delà de objet plainte bi li ñu bind ci plant bi rek ci loolu rek la lay déglu. li ñu bind ci plant bi mooy viol. mais nag gars bi ñu càmbarlee comme mbiru complot la. da ngay gis ni bu ñu demee section de recherche gendarmerie déglu les partie dana gis ni fii affaire viole amu ci ko donc dossier bi dafay clos day jeex dootuñu ko sax waxati o dafa mel ni ñi nekk ci ginnaaw kii bi nag bëgguñu dossier bi jeex loolu moo waral benn instant ñu désaisir gendarmerie dugal procureur de la république directement nga xam ne léegi dootul euh, gendarmerie moo koy déglu. Mhm. mais maintenant léegi procureur mooy ubbi enquête jël affaire bi ci moom. Mhm. léegi pour revenir ci li nga ma laaj. Mhm. Euh, xam nga plainte bi dañ ko adressé nommément. ku tudd Ousmane Sonko. donc normalement procureur daf ko war a mu woo moom Ousmane Sonko. mais li lay wan ni dafay ubbi enquête contre euh, X moo lay expliquer nii. Euh, Ousmane sonk maîtriser tegul agenda maanaam moom léegi. Mhm. emploi du temps mhm. mi ngi ci loxoy justice. parce que suñu ubbee enquête fii ba fukki at yow da nga war a nekk à la disposition justice heure bu la justice soxla ci cadre affaire bi mën nañ laa woo. Mhm. nga ñëw wuy si loolu mooy takk buum bi. c'est-à-dire ëllëg tey jii Ousmane Sonko bu waree bëgg a dem doxi daram sax. ñu ni suba la koy dem doxi ñu xam ko procureur mën na ko woo suba soos te su ko woowee dafa war a bàyyi li muy def ñëw wuyu si parce que yoon moo pour doole li muy def mm. kon donc moom fii ba deux mille vingt quatre mm. maîtriser tul agenda mais justice mooy maîtriser agenda loolu mooy takk boobu mm. bi bi mais mën na nekk plan bu échoué aussi mu nekk échoué baneen euh, bi mooy tilimal der xam nga euh, régime bi ñu nekk nii Euh, le président de la république son excellence Macky mm-hmm. dafa nekk kilifa goo xam ne ci prise de décision euh, dafa nekk kilifa kuy jëfandikoo lu ñuy tuddee sondage. Mm-hmm. maanaam sondage bokk na ci bëri yoo xam ne ci lay sukkandikoo léeg-léeg pour di mën na jël yenn décisions yi en termes de gouvernance et de politique publique. dafa am ay sondage yu génn. donc mën naa bañ a wax tur si ñu ko génne. mais euh, palais bi day def sondage mais aussi euh, yeneen dëkk étranger yoo xam ni dañuy jëflante ak ñoom dañuy def ay sondage mhm. léegi sondage boobu dafa wax ni euh, Covid bi. dafa nar a ndërmeel économie Sénégal. Mhm. dina ko sono trop trop trop ba nga xam ni. conséquence am mooy dafay nar a am ay trouble social parce que am conjoncture bi dëkk bi dana métti métti ba nga xam ne nit ñi dañuy am raado bool mm-hmm. te raado bool boobu buy tomb ci pic pic bi ci cëppaandoo gi mm-hmm. dañuy nekk ci deux mille vingt quatre mm-hmm. te de te kon euh, mu tudd sax raada bol général boobu généralisé. mer dafa nar a profito ak président Ousmane Sonko bu ñu tollee ci deux mille vingt quatre. donc léegi sondage yi joxe ni fi mu toll nii euh, président Ousmane Sonko dafa nekk ci benn pole position léegi nag président Ousmane Sonko dafa am ñaari mbir yu ko topp ñoo xam ni. Mhm. dañuy liggéey pour moom mu bañ a nekk président de la république benn bi c'est extérieur. Mhm. benn bi c'est intérieur. extérieur bi ki ci jiitu moom mooy France parce que Ousmane Sonko dafa mës a wax président Ousmane Sonko dafa mës a wax ni moom bis bu jëlee réewu Sénégal act bi muy njëkk a mhm. mooy génn ci franc CFA. or pour France nag nga ray leen. Mm-hmm. ñu dee nañu yemale affaire France fa bi. Mm-hmm. d'ailleurs Edouard euh, euh, Balladur daan na wax ni. Mm-hmm. la question du franc CFA. ce n'est pas une question technique mais c'est une question politique. léegi nag France dafa mel ni heure boo ko déclarer guerre rek mooy nga tudd franc CFA bi. donc ñoom président Ousmane Sonko daf leen a déclarer guerre donc ñoom tamit du point de vue géostratégique mhm. et c'est tout à fait normal ku nekk da ngay défendre sa intérêt donc du point de vue géostratégique ñoom amuñu intérêt ku mel ni président Sonko ñëw falu fii ci Sénégal mais du point de vue intérieur le président Macky Sall aussi non pas moom individuellement mhm. mais njabootam wala entourage am ku mel ni président Sonko bu ñëwee jël réew mi ak moom fu mu jaar ak moom personnellement. Mm. ba dàq ko fonction publique ak fu mu jaar ak moom ci politique. Mm-hmm. mën nañu am chasse au sorcières. donc da ngay gis dafa am ñaari intérêt extérieur ak intérieur bu bëgg a coaliser. Mm-hmm. def tout ba président son ko bañ a ñëw euh, ci kii bi. lu tax loolu euh, euh, analyse boobu di fondé. Mm-hmm. enquête yi aussi dafa wane sondage d'opinion bi. dafa wane ni ci carte électorale bi. Euh, ñi nga xam ni buñ la votélee yaay gagné élection yi. Mm-hmm. ñoo ñu bokkuñu ci benn parti politique. en waaw waaw dafa am ñoo xam ne dañu bokk ci parti. mais askan bi nga xam ne bokkuñu ci benn parti. électeurs yi ñoom ay électeurs citoyens nañu. bu élec bu jour élection jotee dañuy sangu poste jël seen carte dem. voté selon leur intime conviction ñibbiwaat seen kër boole woon ci dara ñooñu ñoo ëpp ñi nga xam ni ñooy daw di yuuxu ci parti politique yi. Mm-hmm. te ñooñu ñooy basculer élection. Mm-hmm. léegi nag ci ñooñu tamit dañuy sondage bi dafa révélé ni temps yi yëpp ñooñu dañu commencé di bàyyi xel président Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que idée yi muy wax dafa commencé di dugg ci seen xel xam nga lu tax. Ousmane Sonko profilam dafay yee ci askanu sénégalais ak africain yi. ñi ñuy tuddee les perdus des indépendances maanaam mooy Patrice Lumumba bu nekkoon RD Congo mooy Thomas Sankara bi nekkoon euh, Burkina Faso waaw mooy Oumi Ndiobé bi nekkoon Cameroun ba ci Mamadou Dia bi nekkoon euh, Sénégal ça veut dire que askan bi fi ñu toll nii dañu soxla non plus alternance mais ay alternative dañoo bëgg ay doxalin bu bees. pas nit yu bees. voilà ay mm-hmm. nit ñu bees. Mm-hmm. ay doxalin yu bees. ba ñu yem ci ay nit yu bees kese quoi. très bien non seulement. Euh, opinion bi lu mu révélé. Mm-hmm. mooy ni Sénégalais yi dañoo soif ci changement. te changement boobu ñu ngi koy xaar ci ay gis-gis yu bees. ci ay nit ñu bees. ci ay doxalin yu bees. léegi nag euh, groupe boobu. nga xam ni ñoom. ku ñu votel nga gagné. Mhm. dañu commencé bàyyi xel président Ousmane Sonko. léegi si léegi léegi euh, foofu lay daanelee rek. léegi nag euh, groupe boobu. Mhm. Euh, dafa mel ni kon Ousmane Sonko jéemal nañ ko defal lépp pour mën ko daaneel sur le plan politique mënuñu ko daaneel. Mhm. léegi nag ñu ni xaaral ñu xool beneen beneen parti buñ ko mën a daanelee parce que groupe boobu ce sont des gens de certain âge. te ñooñu en général affaire mbërs. muy affaire viol. muy affaire sàcc. muy affaire mu góor jigéen. su ñu ko xasee ba tourment ba sa deret ñoom ñu dañ di dummóoyu donc yëpp dafa mel ni dañu war a bëgg jël jël ñooñu nga xam ne bu ñu basculé Ousmane Sonko mën na am résultat yu baax ñu yàq dara ba ñooñu jógee parce que ñooñu effectivement li li Ousmane Sonko di wax intéressé leen mais wóolooguñu Ousmane Sonko loolu mooy problème. te léegi nag bu liy duggee. très bien xel gën a jaxasoo. très parce que comme Ousmane Sonko li mu leen di wax mi ngi raisonné seen bopp. Mhm. mais wóoluwuñu ko yi léegi ko affaire xam nga góor. Euh, boo ko bëggee rey doo ko tëj kaso. mais doo koy tuumaal lu mu deful ci wàllu sàcc ak ci wàllu viol. ak koy tuumaal lu mu deful. Euh, waxuma ni Ousmane ko def na wala deful. waaw mais góor su tëj kaso pour affaire politique. moo koy rey. li koy mën a rey mooy nga jiiñ ko sàcc te sàcc. nga jiiñ ko viol te violé mm-hmm. nga jiiñ ko affaire góor jigéen te nekk ko. loolu da koy kii bi donc nag léegi Ousmane Sonko comme jéem nañ fekkee yëpp politique mënul jàll. léegi dañuy génn champ politique dugg ci champ mœurs parce que dañ ko bëgg a dumbayoloo ñoo xam ni bis bu ñu basculer ci Ousmane Sonko rek réew mi. d'accord. Euh, changement yu yu profond. macha allah Siré. macha allah macha allah wax ji moom wax ji sax moom li ci li ci li ci li ci li ci li ci ñu bëree bëree bëri Siré jàpp xam nga mooy lan. bi nga ne waxuma ne deful. Mm-hmm. su doon da far dangay taxaw rek ci non deful complot la lii. loolu mooy waxu militant. Mm-hmm. mais da nga ne waxuma ne Ousmane ko deful. deful. Mm-hmm. donc def beeg def ñàkk def wóoru ko. voilà mais bu dee nag dafa def. mag ñooñu nga xam ne dañu koo jàppoon ndax xalaat ci moom loxo bu set ak yooyu dañu koy dumóoyu. ndax gor bu ñu la tuumaalee sàcc góor jigéen euh, wàllum viol. Euh, maar day taali. kay. dégg ah. kado yi. mayel kado yi ñun tamit. mayel kado yi 88 da ngeen ah dañu may nettal histoire yu neex de suñu xol yi xaw a giif tuuti xaw a féex. ñu door a maye kado. ku ñu nettal histoire bu gàtt rek une minute rek une minute rek. déedéet dafa bëri de 30 secondes. 30 secondes waaw kon 30 secondes rek wala 25 secondes. fii téléphone bi dafa am dafa am télescopage. waaw kay. dafa am bëkkante. donc nag gàtt rek parce que kado yi tamit 5 kado la